Nous retenons d'abord que nous félicitons le ministre de l'élevage. Je crois que cette rencontre a été une rencontre très fructueuse. D'abord, nous avons également bénéficié de son écoute très attentive et de nos différentes préoccupations. Nous avons salué également cette innovation avec cette nouvelle plateforme qui est très pertinente et que nous avons décidé également d'accompagner. Les éleveurs également ont décidé d'accompagner l'État dans toutes les démarches pour que les moutons puissent venir. Et les moutons également, l'État nous accompagne pour qu'on puisse avoir des terrains importants pour pouvoir recevoir ces moutons-là. Mais pour tout vous dire, ce que nous retenons, c'est que cette rencontre a été fructueuse, très fructueuse. Nous félicitons le ministre et pour sa jeunesse et son innovation et parce que c'est des initiatives qui sont très pertinentes. Ça va impacter sur le prix, parce que quand même, quoi qu'on dise, tout le long du parcours, il y avait des taxes qu'il fallait débourser. Une fois arrivé sur place, il y avait par rapport aux municipalités, il y avait également des taxes qu'il fallait sortir. Mais tout cela a été enlevé. Je crois que euh, va, euh, euh, les consommateurs sénégalais vont le ressentir également. Notre rôle, comme xam nga dama koy commencé ci circulaire bii nga xam ni génne nañu ko ministre yëpp joxe ci seen kàddu muy intérieur force armées muy transport muy euh, élevage ba pare président son excellence signé ko mu ne oto yi nga xam ne ñoo yor xar yi li ma ci santaane la wax li ma ci santaane oto bi bañu ñu kenn ko contrôler ndax bëgguñu drogue dugg fi bëgguñu ay arme dugg bëgguñu leneen dugg fi waaye ngal la boo arrêté oto bi xoolal lan moo ci nekk est-ce que valable na xolal kan mo ci nek est-ce valable na lu mu yor ay xar bàyyi dem waye li nga xam ne chaque jour chaque année moom la ñu rencontré dañuy téye kayit bi ñu na la kayit bi yow la concerné wa man dama xamni ne kayit bii nga xamni ne autorité yëpp ñoo signé présidentiel ko yow mi tak de taxaw télé bo né concerné wu la xawmu lay concerné man xaw ma ko. tey jii nag li nga xamni ne lañuy dund wax naa ko fi légui du problème transport bu yok da nga koy dégg chaque année transport yok amu fi problème bi ñam moy problème coxeur la ñom coxeur ba du nangu ñu gis borom auto bi mom moy dem ci borom auto yi ko sœur bi waxal ak ñom 400000 francs transport ba fa dem ci naane ko 700000 auto bu ne bëgg ci dagg 300000 bëgg dagat mandat lool moy yok transport bu ko nak pour défon kay ko wax mun la transport da seer la ma leen waxon daaw nak lay waxat transporteur yi mek chauffeur yépp bala nga jël ay xar bu la nga jël avance déedéet waxal ak borom xar yow ya sa ko sœur bi na la ne borom xar ya ngi nga wax ak mom waye fek interprète fi nek rek lool do neex lu jënti lool moy suñu problème principal kenn jël benn sarment boo xam ne ko sóor ma ko waxaale li ñu waxaat doon ci oto malien yi d'accord nañu oto malien bu yabe Mali ñëw Sénégal comme ni ko yoon tërale waaye d'accord nañ mu yabe Sénégal dem Mali comme ni ko yoon tërale vice versa mais yabe biir Sénégal di yabe Mbirkelane dem Dakar wala yabe Daara dem Dakar loolu lañ waxoon moom la ñuy bañoon daaw ak daaw jéeg at yëpp moom la ñuy bañaat ba ren